ñu ne itam buñ booy tànn téléphone na nga tànn téléphone boo xam ne nii kubéer ga liggéey nañ ko noo xam ne nii safara mënut génn ci biir jëm ci bitti maanaam ferñeent li ñuy wax système anti déflagrant war na ko am ngir loolu dana tax nga mën a mucc ci li ñuy wax ATEX maanaam atmosphère explosive nekk foo xam ne boo fa wuyee téléphone safara mën naa jóge ci sa biir téléphone taal foofa kon loolu mat a bàyyi xel la ñu ne itam ko téléphone boo xam ne kubéer ga baaxut ak mel nañ koy moytu ko baax a baax ndax loolu mën na waral ferñeent jóge ci biir jëm ci bitti ñu ne tam nañu moytandiku di téléphoné ci biir oto boo xam dafa tëju complètement wala bus wala assenceur fépp foo xam ne daal weñu ko wër te tëju nañ ko moytu ndax loolu la ñuy comparé li ñuy wax cage de Faraday loolu mën na war a léeg ay jafe-jafe am ci téléphone ci ci nit ki dañuy téléphone tam war na lu ñuy wax sécurité intrinsèque maanaam liggéey ko noo xam ne nii aw tàngooru téléphone bi du génn jëm ci biti bu mu ëpp di di lakk sam nopp am na ko seetlu ci téléphone